élection yi ñu doon falee kii jiite réewum Sénégal mouvement gox yu bees ñoom ñu ngi doon jàppale ñii di waa coalition Diomaye président te ki nga xam ne nii moo di Bassirou Diomaye fay mooy njiitu réew Sénégal léegi ñoom nag ginnaaw ba élection yi jàllee nee nañ ñoom laajuñu poste wala sox ay direction mel ni kuy fayantoo. loolu nag suñu borom moo ñu ko defal euh, bu yàlla dogalee nga am nga nekk ndaw yàlla daal di la féete fenn day am lu bëri loo xam ne mën a tëdd euh, ànd nañu pour liggéey Sénégal ñoom ñoo war a xool ñan nañ war a jël tànn leen pour ñu liggéeyal leen liggéey bi nag tànneef bi ñun xam nañu ko mooy tànn ñi gën a jub tànn ñi ëpp xam a bu bu waa gox yu bees ginnaaw bu ñu génnee ci élection yi nag nee nañ ñi ngi préparé li nga xam ne nii mooy di élection locale yi ñoom ba léegi rek fa ñu ŋànkoon la ñu ba léegi dañoo bëgg a jiite mairie bu Bambey. te bu ñu waxantee suñu dëkk suñu aklacal amul kenn kuy laaj dëkk bi fii ci Bambey koo xam ne gën nañu profil gën nañoo bëgg dëkk bi gën nañoo liggéey ci politique fii ci Bambey loolu amul donc suñu candidature ak suñu ay action politique dafa leer ñëpp xam ne nëbbaluñu ñun ba léegi kii di Pape di Diop ak ñoom di xam leen ñoom daal dañoo fas yéene ànd ak ñi nga xam ne di ñoo di waa coalition Président ngir ñu mën a jiite Sénégal waaye tamit euh, place Bambey dinañ wéy di ko xeex foofee sa coalition ba. accompagner l'action gouvernementale dans la communication et l'exercice des et l'exécution des politiques publiques loolu incha allah dañu ko continuer def fii ci Bambey sunu ay activités sunu ay euh, activités citoyennes politique incha allah dañu ko continuer ci biir commune bi ànd ci ak sunu ay nit yi nga xam ne ñun ñu jàpp mu nekkoon seen ndaje bu njëkk ginnaaw ba élection yu ñu doon tànnee njiitu réewum Sénégal jàlle Pape Mamadou Diop daal dajale woon nag ay ñoñoom ngir rek ñu daal di gën a saafante ak laat bu baax a baax seen taxawaay fii si diwaan Bambey ak aussi fas yéene jàppale coalition Diomaye Président ngir ñu gën a doxal réewu Sénégal